sa euh, directeur général Mamadou Ibra Kane nee na mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi nuyu Serigne Maodo bu baax a baax a baax a baax nee na mi ngi koy ndokkeel di ko ziar nee na mu koy jaarale ci moom nee na di ko jaaral ci moom du ndokkeel sunu xalif xalif général de Tidiane sering Babacar si mansou nee di ziar di ndokel njabot gi yep, nenek wax ji du gudd nee xana di la ñaan rek si malik nee ñu gattal wax ji nee xamna bu baax sa tiofel fu mu tollu ci ñun bu nu togon fi di wax ba suba Nous xamna ni do ci son do ci tay waye nena dal tay dañ lay ñaan bu jox ñu diggal ñu que wax ci nee na nuyu gor yu Nous yi kilifa yu bax yi ñu muy personnalité politique yi nena nga xamanteni ku président Khalifa ababakar Sall nee na mi ngi fii toog président Ousmane Sonko mi ngi nii toog ak président Déthié Fall mi ngi nii toog mhm. nee na ak président Cheikh Tidiane Dièye moom it mi ngi noonu toog nee na mu jiital nag du mu leen tuddee ci nuyoo bi nee na goroom président Aïda Mbodj nuyu di ziar. nee sa goro nee na mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziar. di leen nuyu yéen ñëpp délégation bi ngeen àndal. nee na mi ngi nuyu délégation bi ngeen àndal yëpp. lii nag mooy Sénégal. nee li lii mooy Sénégal. bu diine woote. bu diine woote. suñu borom woote. suñu borom woote. rawatina nag ci bés bi nga xamante ni. nee na rawatina nag ci bis bii nga xamante ni. bis bii nga xam ci leen ci jëm muy suba. muy guddik mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam na xam na ni da ñëpp dinañu bàyyi seen yitte. muy personnalité politique bi. muy personnalité bi. muy journaliste bi. muy commerçant bi. muy sëriñ si. muy sëriñ si. ñun ñëpp. ñu ñëw toog. ñu bokk jotaay. bokk ndaxte ñun ñii. ñoo bokk diine ji. suñu nee na ñoo bokk suñu réew mii di Sénégal. média nee na média nag. doon loo xamante ni. doon loo xamante ni. ñëpp la fi nekkal. ñëpp la fi nekkal. ak lépp la fi nekkal. ak tamit lépp tamit la fi nekkal. bu diine wootee. nee na bu diine wootee. média média day ñëw taxaw. bu politique nee na bu politique wootee. démocratie wootee. démocratie wootee. institution wootee. institution wootee. société bi wootee. société bi wootee. média dafay dafay ñëw taxaw. loolu mooy devoir. loolu mooy devoir. loolu mooy devoir

fekkente ni dañuy wax média. bu fekkee ni dañuy wax média. fu nekk nee na fu nekk. la war a dugal loxoom. fu nekk la war a dugal loxoom. fu nekk la fu nekk la war a dugal kàddoom. defe naa wax ci wàllu digital. te nee na defe nañ li ñuy wax ci wàllu digital. problème yi ak problème yi ñuy jànkonteel. defe naa professionnels yi. na ni professionnels yi. buñ bu ci téye. dafay gën a baax rek dafay gën a baax rek. nag nee na kon nag tey sëriñ bi nee na mi ngi lay wax si Mali nee na bi ñu juddoo fi ñu juddoo yaroo fi ñu yaroo nee na bu ñu ñëwee ci kër gi nee dañoo ñëw suñu kër nee na bu ñu ñëwee ci kër gi ñëw nañu kër sunu maam Sidi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ñëw nañu suñu kër maam euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim maam ñëw nañu suñu kër maam Cheikh Omar Foutiyou Tall. ñëw nañu kër maam Limamou Laye. ñëw nañu kër ñëw nañu kër maam Abdoulaye Niass. ñëw nañu kër maam Abdoulaye xam mooy waajuru maam Cheikh Ibrahima Niass Cheikh al ñëw nañu bu Kunta suñu kër maam bu Kunta ca Ndiassane. ñëw nañu tamit kër Serigne Cheikh Thiénaba. ba ñu yooyu. nee na kon bu ñu ñëwee ci kër yooyu. ñëw nañu ci Muhammad sallallahu alayhi wa ñëw nañu ne ki nga xam ne moom la ñu dëgmal guddeem suba ak jàmm muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee na ñu ngi lay jébbal suñu ndokkeel. ak suñu ziar ak suñu ziar. di la ñaanal wér ak wérle. nee na si Malick ñu ngi lay wax nii kontaan nañu lool.

Nous avons le président Ousmane Sonko le président Cheikh Tidiane le président Détié, le président Aïda Aïssa les députés ak euh, suñu député yi parce que nous tous les élus du département de Tivaouane que ce soit les maires les députés les conseillers les adjoints ouverts, maire ñëpp ñu ngi fi Nous ànd ak ñun pour dox faire nga choses donc euh, sëñ Maodo say taalib say rak say doom say jarbaan say mbokk mbokk yow tarixa bi ñoo ñëw tey di la wax ji du gudd parce que xalifa wax nañu ko léegi euh, jamono moo ko mayetul moo tax tànk yi moom tànku ziar la la wax na ni la xam nañ li nga doon xam nga fi nga féete xam nañ na nga taxawee ba tax na wax si seet si la fii day metti ni dañuy seet si sa waajur bu sell sa njàpp parce que na mu daan waxee na mu daan toogee na mu daan jëfe rek nga tànk yi nga topp <laughs> yàlla na yàlla dëgëral say yox fëgg sa bopp tànk yi ba foofu nga tegu yàlla yàggal la fa parce que nag sa nekkum fii dafa am njëriñ pour ñu sa parole dafa raar

di ñaan yàlla fëgg bopp bi dëgëral tànk yi mu jiitu ñu ba ci kanam a kanam dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo ngi ànd di ko ñaan di félicité nag famille bi yëpp parce que gàmm moment la boo xam ne dañuy màggal gën ji mbindéef suñ ca tolloo na xool yu rafet xel yu dal ànd gu wóor ak jekkal rek moo fi war hmm. moo tax loolu mooy suñu taxawaay fii tey dañ bëggoon wax loolu aussi mm-hmm. ñëpp yóbbaale ko mm-hmm. parce que tey soo demee di wax ci gën ci ñun mm-hmm. da nga cay wax la nga xam ne mooy sa wéeruwaay mooy jéem a roy jéem a topp jéem a mel ni nga xam ni ñi gën ñi baax loolu lañ nekk en ñu ngi lay ñaan ñu lay sant yàlla yàlla fëgg bopp amiin amiin dëgëral boobu rek lañ doon def di gërëm di sant nag parce que bañ mujjee gisee ñu jublu fa ñu jublu ñaanaloon nga ñu yàlla la ko yàlla fay parce que ñaan bi gis nañu njëriñ merci beaucoup dafa wax ne ginnaaw bu mu leen nuyoo ba noppi xel làmmiñ dafa fasu xel itam dafa gëlëm لولو نك ليكو وارال موي باركي سانغ بو تيرتي بي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام موغي turam rek ngay dégg. ay jalooreem la ñuy wax. ay jalooreem la ñuy waxtaane. jikkoom la ñuy bëggee di ko jéem a roy. jikkoom moom la ñuy bëggee di ko jéem a roy kem talaayal kàttan. sallallahu alayhi wa sallam. kenn du moom. nee na sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom. mi ngi ci suñu biir de. nee na nañu gëm ne mi ngi ci suñu biir. nee na mi ngi koy giñ ci màggu yàlla. nee na loolu amul benn werante. yonent bi ci ci waxin. nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci waxin. mooy yàlla. nee na moo di yàlla. donte la yàlla yàlla yàllaam ga wéete na ko. donte yàlla moom jëmm la joo xam ne wéete na yàllaam ga. seen maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu. nee na suñu maam Cheikh Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu. moo daan wax ne yàlla. moo daan wax ne yàlla. soxlaalul yàlla dara. soxlaalul yàlla dara. allahu akbar. ak nee na yàlla ganiyin bi nafsihi an nafsihi dee na maanaam da yàlla jëmm ji daal doyloo na boppam ba soxlaalul yàlla di dara ci waxin macha allah macha allah xalifa jërëjëf xalifa sëriñ bi nee na jërëjëf jërëjëf nee na Mamadou Ibra Kane jërëjëf jërëjëf si jërëjëf si jërëjëf si waaw ñu leen nee na mi ngi leen di béggee. jërëjëf kan. jërëjëf kan. léegi laa koy tooñ di ko dee. nee na léegi la koy tooñ di ko dee. di ko wax ne ko yow sama goro nga. jëkk ngay nekk sama goro dama la yàgg sopp. jëkk ngay nekk sama goro dama la yàgg a sopp. ngay doxale journalisme. ndax ni ngay doxale journalisme. ak waxin ak waxin yu rafet yi ngay wax. mu ne ko sa dicton ak sa français nag. dafay sori sama xol. dafay sori ci sama xol. muy ku yiw di ku baax. muy ku yiw di ku baax. mi ngi leen di jaal suñu rakk yooyu di génn àdduna. nee na mi ngi leen di jaal mbokk mu tedd moom mu génn àdduna bu yàggul. ci accident. ci accident. Alassane Samba nee na mu ne mi ngi ko koy jaale bu baax a baax. jaal waa waalo yëpp. di ko jaal bokki waalo yëpp. tabaarakallahu tabaarakallahu.

xaj Mouhamadou caatu maam El Hadj Malick. Cheikh Al Hadj Mouhamadul Habib mooy caatu maam Cheikh Al Hadj Malick. macha allah. macha allah. taaw biñ ci am. nee na taaw biñ ci am. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh. ñu tuddee ko Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh. nee na mi ngi nuyu bu baax a baax a baax. doomam. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. di ko dalal jàmm. diko sargal diko ndokel ak ñimu àndal ñep neena ñimu àndal ëpp na lii fi mu nekk ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards ñoo daje ci àdduna bi. nee fi ñuy wax nii de ay milliards yi milliards yi milliards ñoo daje ci àdduna bi. individu boo tudd. ndax nee benn nit boo tudd. mooy ñooñu ñëpp. mooy ñëpp nag. kon kon lim kenn mënu koo xam. ku suñu borom subhanahu wa taala. bisu taxe la bis bi bisu taxe la incha allah. bisu faju ajo la incha allah. bisu faju aajo la mi ngi nuyu itam. mi ngi ak mbokk ñu bokk ñoom ñëpp. ak bi ñu àndal ñoom ñëpp. ñoom Yewwi Askan Wi. ñoom Yewwi Askan Wi. macha allah mënul ñàkk ci àdduna waaye rek ña ko seq di ko def waaye daal ña ko seq di ko def nañu bàyyi yéen te xel nañu bàyyi yéen te xel rawatina yàlla mi ñu tiim rawatina nag yàlla mi ñu tiim te yàlla na yéex yàlla na yéex te yàlla na yéex yàlla na yéex dañ fiy jóge ji rek ñun ñii ñëpp dañ fiy jóge ji ñeneen nekk ñeneen nekk fi ñooñee dem beneen génération ñëw nee na mas na waxtaan ak seen maam Alxaaji Abdoul Aziz Sy ca Dakar منكو حاج مالك يلا رك يلا يلا منكو خال رك مدينة جيجو دك أجمي في دك نيب أجلي دك دكار أك بانلي أي أك رجيون أي ملناني أدونا بي أدونا بي يلا رك yàlla rek xam fan lay waaye bu ne ko xam nga Maodo. ne adduna bi man na fi desaat un million d'années lu ko ëpp sax lu ko ndax yàlla moom boppam la xam. kot kot. keneen ku ko génn. keneen ku génn yàlla. mbindeef nga yàlla rek kay yàlla keneen ku dul yàlla mbindaafoon nga. waaw tudd na ma sellam gu kawe gi moom suñu borom. ñaanal ma. sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal. di bëggee tànk yi. ngeen dox. ñëpp dégg. na ñëpp leen dégg. ci seen yëgutu. bari bàyyi nañ leen ñu bari bàyyi nañ leen xel. macha allah loolu nag doon loo xam ne. yan la boo xam ne. yan la boo xam ne. nañu bàyyi yàlla rek mu yenu ko. nañu bàyyi yàlla mu yenu ko. cay doxal. cay namm namm. xam la cay namm nammam. ñun daal li ñu soxal. nee ñun daal li ñu soxal. gannaaw yàlla. gannaaw yàlla. mooy mi. rek rek. du leneen. te réew mi réew mi. te réew mi réew mi. nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi. mooy ñun ñii ak ak ñeneen ñu dul ñii. ba Sénégal daj. moo kuy jox sa bopp. moo kuy jox sa bopp. ku mu doon jox ko yàlla rek. مشايخ الخليفه سوني باي بو باخ نينا مشايخ الخليفه سوني باي بو باخ با نينا كوي كوي يالنا يالا تاسكي يالنا يالا تاسكي باركيم كوي ويرو كوي ويرو داي سيتي داي سيتي غيناو غيناو بروم دايو بروم دايو يا واخ بو ريلا ماغي نيو ميغي نيو سما جيجينم خريتم اجا ايدم بوج ño bokki mam ci walu ño bokki mam ci walu baax la. Aïda ku baax la. ñi ngee nuyu. di ndokkeel. Abdoulaye Wade ci bisu gàmmu gi. ndax kat ndax kat. bokkul ci ngor. bokkul ci ngor. bokkul ci diine. bokkul ci reconnaissance. Abdoulaye wadd bis bii mu fi daan ñëw. wala muy dem ca kër Serigne Abdoul Aziz Al Amine di fa añee. ànd ak premier ministre ak i soppeem bis bi ñëw ñu mel ne mosuñoo xam watt man day sëriñ Maodo dama koy tudd monsieur président Wade foo nekk nu yooti waawoon ak mi ngi noonu ci sa loxo jóge ci kilifa yi jaar ci seen làmmiñu rek seen taalube euh, macha allah macha allah ñun daal fàtte wuñ sëriñ bi daal ne ko fàtte wuñ la. ñun daal ma ñu ne ko ñun daal ma soo ñu fàtte. ba jógee fii ba jógee fii. dem ci xalifa bu tedd bii tey. ci xalifa bu tedd bii tey. ci kër maamam. ci kër gu mag kër gu mag. sëriñ Mbaye xam ne. sëriñ Babacar Sy Mansour xam ne. sëriñam. jàngal na ma alquran jàngal ko alquran. yar na ko sopp na ko bëgg na ko lool. sëriñ Bay Mansour. sëriñ kenn la kenn ci dëggoom ci dëggoom. takkoom ci takkoom. dogoom ci dogoom. bëggam yàlla ak bëggam yàlla. amul tiitukaay amul tiitukaay. waaye am na sago nag. am na xel. léegi fii ñu toll nii. léegi fii ñu toll nii. nit ku nekk ak na nga gisee. nit ku nekk ak na nga gisee. waaye ku xam la nga wax. waaye ku xam. xam la nga wax. ku xam la nga wax. xam la bawoo. xam man nga dalal sa xel. man nga dalal sa xel. te wettali ko te wettali koo ko. sëñ Babacar Mansour fi mu ne sëñ Babacar Mansour fi mu ne. mi ngi yéeg ci ay martaba mi ngi yéeg ci ay martaba di dem ca kaw. wallaahi mi ngi koy giñ ci màggu yàlla. bis feesu yaram bu sutante wii sax. nee na yaram bu sutante wii sax. yooyee ca la bokk. nee na yéeg yooyee ca la bokk. dañu ne ndax dañu ne. duñu la ko jox duñu la ko jox mukk. joxe woo njëg fii ak joxe woo njëg gi. ñun ñëpp nañ ko ñaanal. ñun ñëpp nañ ko ñaanal. moom la ñu am de. moom la ñu am de. moom la ñu am de. Tiwaawoon wéet na. waaye nag. waaye nag. alhamdulilah alhamdulilah. du wéet googu wéet. nee na wéetaay gi demewul noonu de. ndax njaboot gaa ngi fi. ndax njaboot gaa ngi fi. waaye daal moom. waaye daal moom. yëpp sumbu maamam bii la. sumbu maamam bii. yàlla na ko yàlla mottali yàlla na ko yàlla mottali. ci képp kenn ni ko Khalifa Sall waxee léegi. mi ngi ñaan ci ni ko Serigne Babacar Sall waxee léegi mi ngi ñaan ñëpp. nañuy ñaanal Serigne Babacar Mansour. ñun amuñu ko dul moom. mooy suñu mag. mooy xalifa maamam. mooy xalifa maamam. mooy xalifa cheikh. mooy xalifa cheikh. ci wàll yëpp. ci wàll yëpp. maa ngi fàttaliku mi ngi fàttaliku. dans les années 52 52 53 di ko sama mam sama pap Mansour di ko papam Cheikh Al Hadj Mansour ko yebal ne ko mbay di ko yebal ne ko mbay demal ci sa maam Seydou Nourou demal ci sa maam Thierno Saïdou Nourou Tall mu jox la mu jox la wirdu salaatil fatih mooy sa sëriñ mooy sa sëriñ nee na loolu yàgg na boobu maam Seydou Nour mi ngi dëkk rue Blanchot boobu boobu maam Thierno Saïdou Nour mi ngi dëkk rue Blanchot kër gu rëy kër gu rëy soxnaam su baax sa yaay Gogo Keita soxnaam su baax sa yaay Gogo Keita nekk fa. macha allah macha mbokk yi mbokk yi. kontaan nañu sëriñ bi nee na kontaan nañu. Aïda jërëjëf Mbodj Aïda jërëjëf Mbodj. Aïda Aïda jërëjëf Mbodj. jërëjëf Mbodj. du ñu leen fàtte. du ñu leen fàtte. ci sunuy ñaan ci sunuy ñaan. du ñu leen bàyyi. ci sunuy ñaan. ndax nit amul. lu dul mbokkam yéenay suñuy mbokk te yéenay suñuy mbokk ñu doon ko ci yéen ñu doon far di mbokk ñëpp far dat di mbokk ñëpp ñëpp di suñuy mbokk yal na yàlla dolli jàmm yal na yàlla dolli sutura yal na yàlla indi xéewal yal na yàlla dolli barke yal na yàlla dolli barkeel ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na doomam ji Astou Fall di doomu Alioune Fall nee na sa papa moom xamoon na ko bu baax a baax a baax ku daan jokkoo ak papam alxaaji Abdoul Aziz la ku daan jokkoo am na sama rakk bu ñuy wax Mansour am na rakkam bu ñuy wax Mansour miinu ko sax ndax boobu gën na nekk xale miinu ko ndax boobu gën na nekk xale waaye sa papa rek la soppoon muy Mansour Dabakh yal na yàlla boole ñu jàppale ñu ñëpp bu woon ca almadina munawwara ci sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jàngi fa nee na am na fa juróomi at. nee na bis yu ni mel mosu koo dund. juróomi at juróomi at. yàlla baaxee la nga dëkk ak yonent bi. yàlla baaxee ko nga dëkk ak ci wetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam. te àggaloo ci benn âge bi. nee na loolu sant yàlla la. booba. la góor gi jël. booba la góor gi jël. rakkam ju tedd ju baax ji. سرين باي عبد العزيز ينان كو نيول فوتا بوله كوك ركام جي جو باخ جي ينان كو شيخ تيال يوبولين تيتيرنا عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر لي بوتشو بوتشلاني ما شاء الله ما شاء الله moo tax nag moo tax nag man su ma déggul tukulóor moom bu déggul tukulóor itam ay xaal pulaar lañu am na ñaari rakk yoo xam ne ay xaal pulaar lañu biir ni ñu ko dégg sax ni ñu dégg xaal pulaar sax yow mi ko namp soo watul ñu gën la ko dégg kontaan na kontaan na bég na yàlla bu mu nekk suñu mujj daje mu nga ñaan yaa xabiiru xallana alxatma bi fiilin xasani wa sakata ilaaj waaka alwasani لنا رب ووالدينا مغفرة تعم مسلمينا عظيم يا حكيم بالتوابي صل وسلم على الأوابي ظاهر يا باطن بالحق المبين صل وسلم على الهادي الأمين يا ربنا صل وسلم على على محمد